alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajal hudakiran wa shakiran abada wajal kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara jawaa atim ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yawm bi leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiqam seen mbokk saalihu si leen ko defal tey fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu ñuy leeral yoonu aljanna ak yoonu safaan ba di safara yàlla nañ ci yàlla bu ñu demee ci téereem boobu ñuy wax almajmua nga xam ne ci lañ dajale euh, xikma sëriñ bi mm, ci ndigal cheikh abdul ahad radiallahu anhu danañ fekk ca xëtu fanweer ak ñett page 33 sëriñ Tuubaa di ñu wax ne al awamiru turuqun ila al jannati allati wuida al muttaquun wannawaahi turuqun ila nnaari allati waquduha annaasu walxijaara fa mata kunta ala amrin faqad salakta tariqal janna wal aksu bil aks Sëriñ Tuubaa daf ñuy wax ne ndigal yàlla yi ñooy yoon yi jëm aljanna ja nga xam ne nii ñu ragal yàlla yi la ko yàlla dikk ñoom la ko dencal itam waaye tere yi tamit ñooy yoon yi jëm safara wa nga xam ne nii sun borom ay nit ak doj la koy xambee dina wax ne saa boo nekkee ci ndigal mu wóor la yaa ci ndigal yàlla yi na la wóor ne soobu nga yoonu àjjana waaye safaan ba itam noonu boo nekkee ci tere yi tamit na la wóor ne soobu nga yoonu safara am na kilifa ku baax goo xam ne nii nag am na ku ko laajoon ne ndax xam nga ku jëm àjjana ak ku jëm safara mu ne ko loolu de yàlla moo xam waaye ku jaar yoonu àjjana ak ku jaar yoonu safara moom xam naa ko loolu kon day dellu siwaat ci waxi Sëriñ Tuubaa muy képp ku nekk ci ndigali sunu borom na la wóor ne yaa ngi ci yoonu àjjana ah, ku jëm ab dëkk nag nekk te te mu yaa nga tegu ci tegu ci yoon wa boo wàccut yoon wa te jàddoo taxawoo da nga àgg ci ci ndimbalul yàlla waaye nag ku jëm dëkk jaar ci yoon woo xam ne ni da koo dumóoyu te wàccoo yoon wa it na la wóor ne dëkk boobu danga nga koy gën a sori kon nag ab dëkk ko fa jëm da jaar ci aw yoon cheikh abdul ahad radiallahu anhu yàlla na ko yàlla fayal am na ku ñëw ci moom it ne ko dama bëgg nga wax ma ndax yéen yow mi fi nekkal sëñ tubaa nga wax ma ndax man eh, nituk àjjana wala nituk safara la sëñ bi tontu ko ci alquran ne ko innal abraara la fi naimin wa innal fujjaara la fi jahim léegi nag yow yaay xool foo ci bokk <laughs> loolu mi ngi ci suratul infitar suñu borom day wax ne ñu baax ñi ñoom ñi àjjana la ñu dëkk innal abrar la fi naim wa innal fujjar la fi jahim ñu bon ñi nag ñoom mbiir sawara la ñuy dëkk yàlla na ci yàlla musal nit ki nag mooy seet ba xam moom fan la nekk ci yooyu yi ba tey Sëriñ Tuubaa euh, buñ demee ci téere boobu di majmua ba léegi day wax ne man araada minkum duxuula aljanna allati wa'ada almuttaquun falyatawajjah ila allahi bimtisaali awamirih wa man araada najaata min annaari falyatawajjah ila allahi bijitinaabi nawaahi ci xëtu fanweer ak ñeent ca majmuha ba tey day wax ne képp ku bëgg ci yéen dugg àjjana na jublu yàlla ci topp ay ndigalam waaye képp ku bëgg mucc ci yen ci sawara na jublu yàlla ci wattandiku ay tereem kon nag euh, sëriñ bi yooyu ay jàngale yu yu yu yu mu fonkoon la te yu bari la yoo xam ne ne wax na ko fu nekk moo tax waxtu nekk ñun tamit ñuy ñuy soobu ci di ko fàttali sunu bopp di ko fàttali itam ñëpp buñ demee ba tey ci téere boobu ñuy wax almajmuha xëtu fanweer ak juróom benn ak xëtu fanweer ak juróom ñaar page 36 37 daf cay wax ne allahu tabaraka wa taala amara wa waada wa naha wa awaada wa inna min xusni danni imtisaalu ma amara bihi maa rajai fawzi bil mawud allazi huwa aljanna allati wucida almuttaqun wajtinaabu ma naha anhu maa rajai najaati min al mawid bihi alladi huwa annaaru allati waquduha annaas wal hijaara uiddat lil kaafiriin wa inna min min tarkul imtisaali bi iqtihaamil manhi maxa na sun digle dige tere tëkkoo bokk na ci rafetuk njortu nag ngay def lim digal ànd ak lim la dig muy janna muy muy aljanna di wattandiku itam ay tereem ànd ak yaakaara mucc ci eh, lim tëkkoo muy sawara mu ne bokk na ci nag topp njortu te yàlla nañ ci yàlla musal mooy bàyyi lim la digal nuur ci lim la tere ba noppi di yaakaar texe ak ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu leeralaat ko ci weneen bayit ne képp ku yaakaar àjjana ci lu topp yàlla ci suna si bi bu ëllëgee danga nga woru rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati kon nag njàngalem yooyu nañ ci nañ ci fàttali nañ ci nañ ci fàttali sunu bopp di ko fàttaliku di ci jaar ndax ñun ñoo ko taxoon a jóg xekk ma nag day tënku yaa koy tinki ngir jariñoo ca rajo waaw day sekki moo tax mën naa wuy la te wuy bala jariñ nga toj ko jot ca buy ba buy baa jariñ kon wuy wi ñëw na gaañi kaay leen toj ko buñ mën a jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii nëttan ñii njambaan ko ko féete woon naa nit na ngeen seggal ko in uridu illa al islaaha mastataxtama tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu